salaamaaleykum. maaleykum salaam. naka euh, comme ni ko ni ko ñëpp gisee ah violence faite aux femmes moom dafa nekk lu fréquent ci réew mi franchement tey boo déggee am na fi suba dégg nga am na fee récemment rek comme kaaw Mariam Diagne bi comme ni ko waxee met na trop waa buñ sañoon nag. gouvernement bi ñu jël seen mesure surtout ministère de la femme ñu wax ci parce que tamit métti na trop métti na trop. gis na violence bi na bëri Sénégal doo toog weer wala ñaari weer déggoo kenn ku ñu rey donc tey jii est que loolu interpellé wul euh, état bi aujourd'hui côté sécurité ñu aar kaaraange Sénégal. waaw interpellé na état bi surtout pour euh, ñu sécuriser nit ñi mais aussi nit ñi la gën a interpellé parce que dafa am comportement yoo xam ne. moom mooy tax violence yi gën a am parce que problème mooy su nekkee si nekkee danga nekk si famille yor sa nekk père de famille danga war a vigilance si lépp pour revenir si kaaw Marème Diagne bi xam nga li wax ne moom moo tax waa ji rey ko vraiment loo xam ne mënoon nañ ko éviter la parce que problème bi mooy su nekkee nit ki dafa ñëw bëgg sa doom di fa def xaalis mu leer na ko ne du ko seyal mieux vaut waru jël xaalisam loo comportement benn la deuxièmement ñu éviter doxum guddi bu bëri mi yar sa njaboot téye leen ci kër gi redoubler de vigilance mais aussi état bi accompagne ñu léegi ñun il faut ñu impliquer wu ci gestion gestion violence bi parce que mënuñu lu xew rek ñu neutre toog jàpp suñu mos njàmb wala nga daw làqu ji il faut ngi impliqué wu jéem a au sécurité bien vrai que xam nañ ne pour ñu néew dina yéex. mais xam naa ne implication population bi si gox bu nekk ak si koñ bu nekk mun ma permettre violence boobu wàññeeku parce que problème bi mooy su nekkee xam nañ ne su nekkee ñi nga xam ne dañuy euh, dañuy def ñaaw ceef xam nañ ne fu nekk nii suñ duggee si koñ bu ko def naa teef maanaam waa gox ba yëpp ñoom ñooy jóg dal seen kaw maanaam ñu auto sécuriser seen bopp su boobaa def naa loolu yëpp dina wàññeeku mais man la ma gën a seetlu mës naa dóor fii benn agresseur pressol parce que dafa sàccoon saagu benn naar ba mu daanu mais par la suite ñi ko doon dàq dañu mujj daw parce que génnee nañ jaasi yu demee noonu kon nag xam naa implication population si fee yooyu moom moo gën a tax violence bi yokk mais rue bi ñu nekk ñi di waxtaan kenn ñi moo fay sàcc kenn ñi moo fay agressé bokk ko fi def moom dañuy far sa bakkan gis na nag doo toog ñaari weer déggoo jigéen bu ñu faat ci anam bu ñaaw mhm. bi si mujj mooy Maditul Saram ak Marama Diagne mhm. yéen ñi jigéen boo leen déggee loolu gis loolu Sénégal lan la def waaw boobu moom li ma jaaxal moom ci la bokk lool boobu moom defe naa sax moo ma gën a jaaxal ci coronavirus bi ngeen di wax parce que rey gi bari na te xaw ma si lu mu tegu vraiment loolu moom jaaxal nañu lool lool lool lool lool lool ñaari fan ñett doo ko dégg te jigéen ngay dégg kooku moom war nañ see jóg seet lan moo tax ak nuñ koy faag fajee mais moom loolu moom ëpp na ëpp na ëpp na wóor na yàlla wóor yonente bu loolu moom moom ma tiital li ma tiital ngi nii mooy rey gii ngay wax ñaari fan ñett jigéen rey nañ ko. ne doo toog ñaari weer soo ñu rey faat nit Sénégal est-ce que jotul tey autorité sénégalais yi aar askon bi. lii yëpp 2000 la commencé 2000 ci la commencé li ko fi dugal mooy affaire xarxa foofa xërëm yi rek 2000 la xërëm yi commencé mbër yeeg lu kenn xamul. ñëpp dugg ci mara yi jóge woon ci àll be Nigéria ak tout ñëw du daanu si ci dëkk bi boo fii mu ne nag day yokk waaye du wàññeeku xërëm la rek lépp ñi ci bari dañu leen a xabtal kooku nga gis nii mu def dafa ko dañu koo defloo ko ko defloo tey jii wutu ci dara lu du lu baaxam waaw moom deful de daanaka dañu ko ko tegal yu ci bari nit ñi di ko def dañu leen koy tegal waaw loolu nag moom dafa bari Sénégal am na ñoo xam dañuy rey ku fi rey liir bi bu yàggul ñu wax mu ne day sëriñam moo ko ne eh, boo ko reyul rab yi da lay topp pour lan ngir alal ngir lan hmm? la ca xam maanaam état bi même lu mu mën def ci kaw suufit it mënut ku ne mu teg sa teg benn policier ci sa côté waaw waa kër ga moom vraiment am ci ni ma ko déggee sàggan nañu te doo dégg waajur wu yëgul kër goo xam ne bàyyi amatu ci ndeye fa ne ku ñuy maye monte may kër yëpp jigéen ñee ko cadré te jigéen dañu ko yëlif doo dégg ñu wax boo tudd baay ah te jigéen moom te yëlif kër moo tax événement lii di am yëpp di am fekk nag jigéen ñi ñu ngi leen di jox seen pouvoir yi musiba yi gën a am ci réew mi rek. soo gis-gis yow lan mooy waral cause parce que gis nañ dafa bëri Sénégal yow pour yow lan mooy cause bi. bon comme cause yi mën nañoo xool jigéen tamit des fois seen seen façon solin mooy loolu noonu lu leen neex la ñuy sol genre loolu mën naa attirer ku naa nekk tamit. pauvreté yow mën nga pauvreté mën na laa tax dugg ci lu nekk comme on le sait tous mooy loolu noonu bari na cause daal franchement franchement mën nañ mën nañ ni góor ñi la mais des fois tamit jigéen ñi ñoo koy teg seen bopp parce que ñooy ñooy ñooy prouvé que góor ñi genre ñooy solo le leer truc de ce genre waaw bari na trop. sa solution pour yow pour er-, éradiquer violence bi lan lay doon juste xanaa gouvernement bi ñu xool ay jël ay mesures yu daal sévère. jaar ñoo xam te ne mesure yooyu noonu mën naa tax góor ñi dinañ am tuuti recul dinañ xalaat bu ñu defee lii lii mën nañu see fekk jaar waa franchement franchement loolu war naa mën a nekk parce que bu ñu botee waa boobu noonu dina am ñoo xam te ne nii comme ku violé ñu rey la point waaw wala wala yow daal ñu tëj la à vie point yow boo xoolee boo xalaatee loolu noonu mën ngaa wàññi daal je pense waaw waaw. mu jeex ah mujjee Sénégal xaw ma ndox xanaa ñu jéem def rek ku rey ñu rey la ñu teg la carément rey la ni nga reyee waaw parce que rey yàlla rek moo ko yelloo ak nag lu problème bu mën a demee loolu kese laa ci xàmmee.